aathaar yi nga xam ne wahabi yi dañ koy askan asalafu saalex nga xam ne bokk na ci seen diaayaat yi ñuy def dañuy topp alquran sunna sunna bi fahmi salaf bëgg a wane nag dégg yéenu salaf lañ indi tax ñu am aathaar yu bari yoo xam ne dañ koy askan asalafu saalex ñu tolloon ci di càmbar yooyu aathaar tey jii nañu toll ci kilifa gu mag ci kilifa asalafu saalex muy Suleymaan at-Taymi moom nag dañoo wax ne euh, daa wax ne buñ ma laajoon fan la yàlla nekk ma ne leen mu ngi ci asamaan jooju wax nag seen sëriñ si indi nañ ko seen téere bi ñu àdduraat moom ñëw na ca waaye waxee bi yu bare wax ay waxee ab lim ca waxee bi wax nañ fa waaye tam ñëw na ci téere ijtimaaul juyuushil islamiyya bu ibnul qayim di kenn ci seen delluwaay yi gën a mag yaakaar naa ginnaaw ibnu taymiya koo gën a mag ci seen delluwaay amul waaye seen ponkal mi nga xam ne mooy ibnu taymiya itam indi na ko ci bayaanu talbiisil jahmiyya asar bi nag dafa am ay jafe-jafe ndax سند بلا نهار يوسف لك مي دمرة الصدق ب كنت كثير من حاجة وانا جي تقريب تقريبنا صدوق يهم لصدوق تبصخ وهو لجمهور العلماء دانك كنت قاس بقى بكيش لنجم تا نتون لبقسنا تا يفر لدفوك برم خمينا خاني نوي ضبادي نوي ثقادي دانك سخلوانك لرأي من نميوه جيف المنك بريجل كنون وعيروت ننيو دولي شيه مباريش ومموارو صدوق صدوق بكرك ثقة دنبيان نعم تخيين منا لك ثقة بنوك أمي جيف جيف بري وعي ثقة مموك دولي صدوق صدوق كان كجار الكيتم موي صدق بن يزيد moom itam boo demee ci misaanul ictidaal bu zahabi day wax ni ibnu xabbaan nee na soxla ab xadisam bàyyi nga di ko jéem a laye kon sadaqa mi lépp lu mu nett li fa ibnu xabbaan laye la layelam nett li daa doon soxlu dagat bu dee buxaari yu nee na munkarul xadis te loolu jarxala boo xam ne mu fassar la te kuñ ko ne sab xadis du bu dee ci istilaax ku mel ni yenn fonkali borom xam yi yenn yi ahmad ibnu hanbal moom itam da ko wata daif nee na daif te al jarxu al mufassar muqaddamun ala taadil moo tax kon boo gisoon ku ko tawfiq sax daanaka tawfiq du doon solo kon boobu mooy xalaqab tey bi mu mel ni ñu ngi ciy bëgg a ndax ñu ngi ci suñ numéro 18 li bu amee lu muy tesale nag mooy dëgër fit goo xam ne gars yi dëgër nañ ko fit ba nga xam ne luñ xor rek daal di ne asalafu saalix moo ko wax te gëstu ga leer ne asalafu ko xam ne du leen ci fekk ñoom dal lu dëppoog seen pas-pas lu mu doyee di ak euh, lu mu waayf waayf ñëwee nañ ko indi ci téere yi gën a mag di ko jàngal seeni i ndongo waaye lu dëppoo rek seen pas lu mu dëgër dëgër ñeme nañ ko jéem a daif wala ñu formé benn waay boo xam ne xëy na boo mu gis benn waay boo xam ne war a xam xadis mën bañ a dëgër ñu defal médiatisé ko ñu bari xam ko ñu naan na war a xamee yi sax naa bañ xamee noonu yëf yi mu fekk yoo xam ne yu wér ci ngir mu defee ne mën na koo to du ma ne sax da koo tëddaayoo dama naa defee ne mën na koo tëddaayoo ndax boo ko defee it dañ koy leeralal rek kon daal loolu moom moo ci kon gis ngeen ne kon gis ngeen ne ku njëkk ci saduq la te saduq euh, lu mu nekk li faaw am gëstuwaat bu am gëstu am bu ñu war a def ci moom ba li ñu koo saxal euh, ñaareel bi itam ku ñaareel ki moom dégg ngeen li ci borom xam yi wax.